istizaal dafa bëgg sàcc sàcc bi mooy dafa bëgg tànn maanaam ay mbër mbër yi nga xamante ne ñoo ñoo war a bëri ak moom te ñun loolu duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan suba ñun kantaa ñàkk nañ combat ñàkkuñu pour ñu ñàkkuñu dara ndax lu ñu waroon def ñoo ngi koy def te yàlla def nañ à chaque fois histoire bi daf ñuy jox raison gisoon nañ ko fi ci poste suppression poste premier ministre ñun organisation ñun ñoo fi génnoon ñu ne déedéet te pourtant ñun kenn ci ñun namewuñ ko poste ministériel te pour pourtant xeexoon nañ ko tey moom président Macky moom moo ñëw ñëwaat encore mu ne damay indiwaat poste premier ministre. parrainage bi gis nañu maître Abdoulaye Tine déposé na recours CEDEAO mu ne loi bii nii baaxul CEDEAO mu ne leen lii nii baaxul donc CEDEAO tey su génnee mu ne lii nii baaxul président Macky Sall daf ko war a appliquer ndax CEDEAO bànqaas boobu noonu daf ko ordonné mu ne ko lii génnee ko ñun nag ñàkkuñu combat bi. li ñu mën a wax rek ñun organisation citoyen ñun citoyen Sénégal li ñu war a def dañ koy def léegi ñoom nañu jël seeni responsabilité fi may daanelee mooy fenn moom président Macky Sall au que mu nekk fii di Tambambalu moo ci mbeddu Dakar yi di wax ay wax yi xawma Forum mondial de l'eau na régler problème citoyen sénégalais yi loi électorale bi sàcc la moom président Macky daanaka bu mu toogee ba léegi sàcc la day ci sàcc moom la dëkk ci loolu la nekk également te ñun loolu duñ ko seetaan day tambambaalu ngir sàcc sàcc kese la même suñu ndox bi sax daf ko sàcc dama ni na dem nommé poste premier ministre moom moo ko waxoon ñun organisation citoyenne ñu ñoo fi génnoon di xeex ngir nañu lii ñu ne ko lii baaxul te aujourd'hui l'histoire nous a donné raison au lieu que mu nekk fi di tambambaalu di jaayi ndox jàmbur alors que les gens ne sont amuñu ndox na régler problème boobu ndeyu wax ji kay mooy suba mortalatin nañu xaar ndax moom ñoom nañu war xam ne ne ñun suñu constitution moom moo ñu jox droit ñu manifester sagam keroog dem nañu place de l'indépendance xaw ma Soweto ñu jaar ci mbeddu criminel boobu noonu Faidherbe dama ni la dañuy demaat foofu en réalité ñun organisation musuñu nekk xaw ma de futur de xaw ma troupe xaw ma sànna lañ koy waxee en ñoom la parce que keroog def nañ ko jàmm ak salaam ñoom Abdou Karim di di di génn di joxe amul benn problème donc suba force de défense et de sécurité yi nañ ñu encadré ñu dem ñu manifester ñu jël suñu lettre jëbbal ko Antoine Félix Diome jeex na jàmm ne ñooy pour man wax ji du jeunes yi wala ñàkk jeune mais en ñun débat bi ñu posé mooy que parrainage dañoo ne baaxul ñu ordonné Macky moom na ko génne wax ji kay mooy lu tax Macky Sall bu mu doon organiser. élection municipale deful parrainage mu bugg ko def ci législatif loolu d'abord laaj la deuxièmement CEDEAO moom ci jëmmu boppam dafa ordonné moom moo ne loi lii baaxul mais tamit nañu waxante dëgg les citoyens dañoo war a am choix ñu am choix maanaam ñun nu ñuy amee choix bugg lekk ceeb walla jël maafe walla jël jël jël jël en réalité ci loi de lenn moo fa lakkatu lenn kese la mooy moom président Macky dafa bugg def maanaam sélection tànn mbër yi nga xamante ne moom ñooñu lay lay kii bëre contre mbërëm bi moo tax ñun nag ñu ne loolu duñ ko nangu tey wax ji loolu la pas que président Macky moom président Macky Sall lenn kese moo wund ci parrainage bii dafa bugg sàcc loolu kese la dafa bugg sàcc. te ñun loolu duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan suba les citoyens ñoom nag dañoo war a am droit ci pluralité liste yi mun a tànn lii mun a tànn lii parrainage bi loolu kese la filtre la bi nga xamante ne président Macky Sall daf ko bugg a jël ngir sàcc élection yi loolu kese la